Banjul See, there is a huge number of people from Banjul, Badibu, and... They say, well, you elected him. Yes, you all elected him. But it's our barrow. It is our barrow. And it's our barrow, and we will never abandon our barrow. We'll never abandon him. Come rain, come sunshine, whatever. Adama Barrow mooy pour Banjul mooy pour Gambia nañ ko bayi bàyyi ku gis ta Gambi Saara def gis na foo foo ñi gi ñoo wax nii sax su fa Adama Barrow demee rek fa toj ko addu Mystic Records. Zambia one love. born dirty politics. born tribalism. And born fake and hypocrite artists. Them we don't need them in our yard, you know. Mr. President, agreement is an agreement. Don't face the parliament. This was not your comment. We don't need no disappointment. man can go back. Remember you promise at the back. We so tired of them left disconnect. Click YouTube and connect. You can't run for the people to love you. Do what will make them love you. We voted for you to commit corruption. Change the situation, not to put us on deception. Accidental president. I am not an accidental president. president and goes, everything go wrong, of course, wrong. talibi Turchin dei gado rong butanga bi rong bachi Bear State house be Toik takare kasi jar chi bun chi ganau be So buchi gate ji sap sap pak horom bu sap be Kulane khe marmuchu senchu mochar Har le nyu chi dega bi du nyu kere wak dega bi Senegam ya sok la dega bi da yu nok chi wak wak he Ay kili fo jima gog di nyu mew Nyu nyu nyep chi mbali bi Fan bali, bali bali la nyu ni fly your kids to America. Every year you and your crew to Mecca. We don't need selfies and police leaders. If you can be the real killers, why not? Salah. Mr. Lawyer already meant for taking people to court. Gambia, the ball is in your court. Three, five years. Think twice before get hot. I don't buy you five years. Marley monster. The wall is waiting, you're turning back home. One love Gambia. And big up for a house crew, you don't wanna see the children crying. Anyone who still knows how the constitution of this country works will advocate that Mr. Barrow steps down at the end of the five, at the end of the three years. I have made it known, and since they have gone public, I have made it known at the meeting that look, that statement is a non-starter, and I will be the one who will challenge that in the court. Man, dama toog rek fu ma romb ñu three years three years ma three years lan ñu ne three years Adama Barrow dafa war a wàcca ma ne leen déedéet constitution bi five years lañ dee lañ dee toog di. te ndey constitution bi sax. Ah. waxi three years bi. Ah. dafa dooroon bu yàgga waaw bañ ne three years sa war a mm-hmm. dañ d'accordoon ne three years war a toog. Mm-hmm. ñu dem ba ca biir ñu dégg ne am na ku jóg ne. Mm-hmm. three years ku ko fi wax ñu yóbbu la ko. waaw man ah. de loolu laa mujjee woon a dégg ndey. man de noonu laa ko déggee man tam laa ko déggee de ñu ne daal three years baro ko fi toog five years ku fi wax three years. ñu denc la ñu denc la ñu dem ba ah. ca digga ma olbatiko ti dem marché di gàtt ñu naan Adama Barrow de dafaa dem tëri yées dafaa nangam dafaa nii dafaa nii pour lan ma ne dama bëgg a xam wax jooju ku ko ekkati ak mm. pour lan moo ñu war koo def man mii man moo ma jaaxal te maa ngi laaj ñëpp nag lan moo tax luwaa réew mi ñu teg ko fii defee nu leen neex kon kay ñii xanaa kay deng laa ko rek def seen waxi wax waxiloo te tegoon ci luwaa te dëkk nag dëkk bi nag ci luwaa la tegu nag xam nga sa nguur neex na neex goo xam ne mhm. soo ci nekkee léegi-léeg di nga wax loo xam ne santuñ la ko kay léegi-léeg dañ ngaa wax luñ la santu bi ko nguur gaa ngi la neex soo demee nag ba nguur gi bàyyi la mhm. itam foog nga jógal sa fitna kay waaye nag ñun ndey ñun dañ talul fitna kay barka démb boo njaay lañ jógee ci fitna yaaya jaame gi kay gis nga suñ xale yi ni tasaarooyee man mi sax dama daw di te gis nga xam nga lu ma ci naxari dañ jëb dem jóob kunda di fa jël aso bi doomi Diop Kounda boobu ne ñoom duñ oda Hadijatu Diallo muy liggéey justice ne ko pour la mun na ko tries be tax ndax dañ bañ suñu alal yàqu xam nga ko waaw mën na ko doo leen oda mu ne ko déedéet mu ne ma mu ne ma déedéet ndax bëgguñ suñu alal yàqu demal ci marché bi pour lan tries bi marché bi doo gis dara loo jënd tey bañ na school jot na genn waale xale yaa jàngi axa kay ñu naan tries yot axa kay man dama xamul tries bi sax la na ko is ak war a war a tax sax ñu naan dañoo tries ah, du yoon moom ah du yoon moom ah waaye Adama Barrow nag li fi liggéey nag sa dëgg dëgg nag nit ñi war nañ koo gis nag xam ko. a kay xa kay. ki laa liggéeyal ki ñoo ne daf laa liggéeyal te laaju dara booleel la ko yar a teggin. three years. du dox. three years bi du fi am. du fi am ndey. du fi am tey du fi am du fi am du fi am ndey du te ñun dañ jóg taxaw tem nag. xa kay pour jóg ne three years. du fi am three years du fi am. yéen nag ñoo deglu yéen ay télévision yi waa Banjul. xa kay yéen ay juddu Banjul yaroo Banjul màggee Banjul. xa yéen xam nañ seen liggéey gis nañ seen liggéey. du fi am te liggéey. du fi am triees du fi du fi am. du fi am de. triees du fi am. pare nañ si rek. waaw du fi am du fi am. five years five years rek. waaw five years rek naree si fitna. kay billaahi dinañ xam ne ñun ñoo leen gën a bari fitna. soo ñu ci jàmm ñu wuli la ci jàmm soo ñu ngoon ci jàmm ñu wuli la ci jàmm soo buggee fitna ñoo la ko daxa ñun kenn gënu ñoo mën a xool. five years rek Adama waaw donc five years waaw Sayar gërëm nañ leen waaw gërëm nañ leen sant nañ leen waaw yéen a ko wone te fii nii Gambia la fii Banjul la yéen waa Banjul ngeen juddu Banjul ngeen yaroo Banjul mu ñun kenn duñu ko yàqal nii rek la Adama Barrow laa ne Adama Barrow five years Adama Barrow five years ñu sànni kat mu dóoraat gaa billahi Adama Barrow ñu sànniwaat carte beneen carte mu dóoraat gaa yi Adama Barrow fi jógagut sax jógagu fi dañ ko ah, soxla Adama dañ ko soxla dañ ko soxla dañ ko soxla Adama Barrow lañ soxla fii Adama Barrow lañ soxla lan la da ngeen ngeen toog bu leen ñu gëteel bu leen ñu gëteel dañ bëgg a jàmma five years lañ soxla billahi Adama Barrow five years yéen a nga na five years lañ years lañ soxla président Adama Barrow five years